mbër yi liñ fi lancé nii. stage bi ñu dox nii fan la jëmal làmb. waaw dafa am solo parce que 10 mois d'inactivité 10 mois yu nga xam ne euh, mbër yi liggéey ñu dafa metti donc ñi nga xam ne jotoon nañ ci avance seen avance jeex na Euh, promoteurs yi également dafa metti ci ñoom ñoom joxe nañu avance te xamatuñu fan la ñu jëm boo xoolee sax promoteurs yi ci bari téye nañu seen loxo jamono ji ñemeetuñu joxe avance parce que saison boo xamul kañ lay ubbi ñemeetoo ci dugal sa xaalis ñu ci jot a dugal seen xaalis ñi ngi nekk dans l'incertitude donc tey jot na le monde de la lutte jóg euh, pour reprendre les activités ñoom ñaanu ñu kenn dërëm li nga xam ne loolu la ñu wax mooy nañ ñu permettre ñu reprendre suñuy activité euh, ci yenn conditions yi dans le respect euh, des mesures barrières ou bien des mesures édictées par les forces euh, ou bien par euh, par les hommes de de, de mooy ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci wàllu wér-gu-yaram euh, leneen li ci des mooy euh, drame bi dafa dépassé ñi nga xam ne ñooy mbër yu mag yi mbër yu mag yi muy ñi nga xam ñoom lañ tuddee VIP amaana am nañu lu ñu suturloo mais li gën a metti mooy ñu nekk ci seen ginnaaw parce que écurie boo gis euh, ñaar ñoo ci laal cent cent millions wala kenn ñeneen ñi ci des ñëpp ay weccet la ñuy laal mais weccet boobu ci la ñuy suturlu bu ñu amee combat ci la leen benn Malick Thiandoum di jàppale benn nit jàppale leen ci ñu mën ci suturlu mbappat yi ci la euh, xale yu bari di dem ci àll bi di ci daan seen doole di ci am ay nag di ci am ay weccet donc désespoir boobu tey moo dem ba egg ci boo yu bari di mbëkk boo demee Mbour euh, assurance wax na ma que nee na ma mbëru tànk desatul sama écurie donc ñëpp dem nañu keroog jamteer yi nee na ma boy yi ma doon toogal ñu ci bari dem nañu gaal gi tàkk ci na ñenn ñu bokk donc kon ñu xam ne le drame est est est là la nécessité de reprendre la lutte mu ngi fii nañu xool nan lañ koy organiser tey le ministre des sports mi ngi daje ak promoteurs yi pour xool nan la joyante mais à la làmb dafa war a reprendre parce que discrimination baaxul ñenn ñi mënuñu di liggéey làmb ji du liggéey mbër yi lii mooy seen liggéey nañ leen bàyyi ñu liggéey et ils ont raison de pousser un un de cœur d'alerter parce que lii la ñu mën a def pour que affaire yi reprendre. merci père. non l'heure est grave loolu kay moom mooy li ma la wax rek c'est un drame euh, je pense que tey làmb ni ñu koy waxee facteur de développement la industrie la ñi ciy dund bari na donc tey euh, bu ñu ko tëjee euh, lu ci bari dafay sooxe comme je l'ai dit tout à l'heure on jour nit ku nekk di nga dee ci dara moo xam corona lay rey moo xam nga génn fii oto fiir la nga dee mbaa nga siburu dee wala leneen dal la mais nag bu fekkee ni tey amuloo loo dundee amuloo loo suturloo am na lu nga xam ne euh, tey euh, je pense que corona moo ko gën a garaaw ndax war a faj bu mu gàccee mënoo ko faj gis sa njaboot ñu mën a dund amoo loo leen dundale gis sa ndey mu nar a dëpp cin da ngay góor yàlla am doole mën ko dimbali dimbali woo ko bu ñu ci jàppul di nga def leneen kon nañu jàppale jeunes yi en général parce que c'est pas que les lutteurs mais c'est la jeunesse qui est en train de souffrir donc nañu dimbali ndaw ñi ñu reprendre activité yi le virus est là te jógee gu fi virus bi jógee gu fi nañu dund ak moom ñafe suñu life je pense que loolu moo ci des. mais pour loolu am yan voies et moyens la a utiliser ba ñu bëriwaat ni ñu war a waate mooy lan mooy par exemple l'arène nationale ça fait vingt mille places nañu xool ban capacité lañ koy réduir pour def distanciation sociale nañu exiger raxasu ak ak ak ak ak ndox ak saabu nañu exiger gel nañu exiger les masques pour que ñu mën a reprendre mais lamb kenn mënu ko def à huis clos c'est pas possible lamb dafa ànd ak ambiance làmb dafa ànd ak public mais le public naka lañ leen di gérer c'est là qu'il faut trouver la question nan la ñuy réduire les capacités de du stade loolu la ñu war xool leneen li ci des il faut l'accompagnement de l'État comment l'État doit combler ce gap ce manque à gagner parce que promoteur bi boo ko nee vingt mille places la mais dix mille yi ngay duy dix mille yi ci des foog mu am lu ko compenser te loolu bu amee sponsoring dina baax su fekkee ni également état bi dugal na ci loxoom pour euh, jënd les droits de retransmission loolu aussi dina compenser yëf fi leneen li ci des mooy force Covid 19 27 millions lañ ci jox làmb nañu ko fulandi pour que làmb ji mën a reprendre je pense que là là aussi c'est un droit absolu bu nga xam ne Gris Bordeaux wax na ko pour que état bi gestu leen ci force Covid 19 ñu yokkal leen bu ko defee làmb ji mën a suqali